mbokk yi ñuy seetaan fii ci Reubeuss TV ñu ngi leen di ziyaar di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yal nañu nangul suñuy koor nanguñu suñuy nawaafil ak suñu mbooleem jàmm yàlla yi ñu del siwaat inchaa allah si suñu waxtaanu koor comme niñ ko daan defee mu mel nii jotoon nañu wax lu bari ci li aju ci koor suñu dars bi weesu woon ñu nekkoon ci ngant yi nga xamante ne nii ku mu gaar war ngaa dog sab koor walla am nga ngantal koor su ko defee ñu jotaayu tey ji incha allah ci gàttal dinañu ñëw nag ci yi nga xam ne ñooy yi yàqu koor mooy muftiraatu siyaam wala muftiraatu sawm yi nga xam ne daal nit ki bu ko defee ki nga xam ne dafa woor bu ko defee kooram yàqu na yooyu moom la ñu bëgg a jàngatandoor ak yéen tey jii nii incha yooyu mbokk yi ba ca jiitu moom moo di al aklu awi shurb amdan képp koo xamante ne dafa lekk wala mu naan te tey ko ñu bàyyi waale xel baatu te tey ko li ciy déggee moo di ne ki nga xam ne teyu ko kooku dara waru ko day continuer kooram ni ko yonente bi alayhi salaatu waxee woon ne képp koo xamante ne nii ci yéen fàtte na mu lekk wala mu naan ci weeru koor na continuer kooram na xam ne yàlla moo ko leyal wala moo ko nandal kon ku juubu ci weeru te def defee ko ci teyeef kooku moom li nga xam ne mooy li ko war mooy mu continuer kooram rek dara waru ko loolu itam li ñuy won ne ku ko def day yàqu koor gi mooy borom bi subhanahu wa taala moo ñu wax ne wa kulu washrabu xata yatabayana lakum xaytu l abyadu min al xayti al aswadi min al fajr summa atimmu siyaama ila leyl kon yàlla ci aaya bi daf ci définir li nga xamante ni moom lañu ñu tere kay woor kon ku ko def rek dog na kon lim ñu wax mooy ci guddi gi na ngeen lekk te naan ba fajar xar kon ki nga xamante ni ci bëccëgu weeru ko dafa lekk wala mu naan te ko su boobaa kooku moom kooram yàqu na da koo war e, fay insha allah ñaareel ba mbokk yi mooy ki nga xamante ne nii nag e, dafa ànd ak soxnaam wala jigéen ju ànd ak boroom këram mooy di aljimaa kooku ñaari mbir moom moo koy war mooy fay ak kafaara dafa wara fay ba pare kaffaara yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa am bés benn waaye jógee ca Madina ca biir dëkk ba ñëw ni ko man de alkunaa ndax dama ànd ak sama soxna ci bëccëgu wéeru koor yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko ndax am na jaam boo goreel mu ne ko déedéet mu ne ko ndax man nga woor ñaari weer yu toftalante yu toppalante mu ne ko man benn weer bi sax maa ngi nii di ci juubu kon loolu man mënuma ko mu ne ko ndax am na am nga loo leelee juróom ne fukki miskin mu ne ko déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam noppi toog ab diir ñu indil ko benn pañe tàndarma mu daal di wax ne ana ki doon laaj waa ji ne ko maa ngi nii mu ne ko jëlal lii nii nga dem saraxe ko mu ne ko ragal naa ne ci biir Madina gisuma fi ku fi gën ku ma gën a ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di reetaan ba ay sellam feeñ ndeysaan mu muuñ ba ay sellam feeñ mu ne ko jëlal lii nga dem dundalee ko sa njaboot kon da ciy déggee ci xarit boobu ne ki nga xamante ni dafa ànd ak soxnam ci bëccëgu wéeru koor li ko war moom moo di kaffaara kon kooku kooram yàqu na dafa war a kaffaara moo tax kaffaara foo ko gis rek punition lay doon mooy dañ koy punir moo tax ki nga xam ne dafa dafay jël kafaara gi ci ñaari weer yu toftalantoo mu war a nekk 60 jours bu wooroon cinquante 59 jours ba pare mu dog benn fan bi day reprendre à zéro kooku moom day continuer rek amul ne sax naa ko daggate wala naa xaar yeneen jours yi ma woor ko feneen moo tax day mujj a nekk lu sévère loo xamante ne ni euh, dañ koy teg ci ndoddub jullit gi ngir mu mën ci fare xotti worma googu mu xotti woon worma weeru koor mbokk yi ñetteel ba ci yi yàqu koor moo di am dan mooy koo xam ne day tey wocc xam ne daal moom moo jël ay baaraam dugal ci gémmiñam wala def na pexeem daal ba mu looju ba mu génnee li li mu lekkoon mu nekkoon ci biiram su boobaa kooku moom koor gi yàqu na kooram dafay daldi yàqu bokk na ci itam ba tey te mooy ñeenteel ba mooy alxijaama xijaama buñ ko waxee mooy nàmpatal nampatal mooy gàjjulu euh, am na ñu koy faral di defee béjjén ñeneen ñi di jël ay kaasu ataaya mooy ñi nga xamante ne dañuy dem ci nit ki mu dindil leen deret ju bon ji nekk seen biir yaram xam ne dañuy tàngal benn mbir ba pare teg ko ci yaram bi mu ñu paree jël lañ set dagg ko après nal deret yi nga xamante ne deret ju baaxul la loolu la chaque année koo xamante ni defal nañ ko ko dafay mayaan nit ki force ki nga xamante ni dafa woor nag dañ koy tere mu def loolu def parce que dafay mel ni da ciy wuute force ba nga xam ne dootul yëgati coono bi nga xamante ni moom mooy bi nekk ci koor googa leen moo tax loolu itam dafa bokk ci liy yàq koor euh, juróomeel ba mooy xuruju damil xayd kon nifaas bokk na ci liy yàq koor itam lële ay ngànt la woon mooy génnug deret bi nga xam ne moom lañ doon tudd ci suñu ñaari dars yi weesu mooy deretu règle wala deretu wasin ki nga xamante ni daal xëy na woor ba jant bi commencé yëkkatiku wala daal fanaanoon a koor mu jékki-jékki deret jooju gaar ko su boobaa fa saa si dafay dem naan ndoxam dem lekk te naan daal di am tiyaabu ndax appliqué googu nga xam ne moom la appliqué chariatul islaamiya bokk na ci li nga xam ne mooy li yàqu koor itam mooy am yéenay dog am yéenay dog kii nga xam ne dafa xëyoon woor toog ba jëmmi jamono rek ne man daal fas naa yéene daal tey damay dog tey daal wóoruma su boobaa moom moom foofu yéeneem googu ci fasaasi dafay dog kooram googa leen moo tax parce que laltaay bi nga xamante ni moom lañ laltaayoon ne dañoo joxe woon importance bi nga xamante ni yéene boobu la am ci biir jaamu yàlla yi moo tax ki nga xam ne def na lii itam kooku dafay daal di nekk ku dog koor gi dafay yàqu juróom ñaareel bi nga xam ne moom la ñuy mujjee moo di aridda ariddatu mooy murtat ku nekkoon ci lislaam ba mu yàgg génn ci lislaam ne man daal tubbi naa léegi man yéeféer laa wala ci beneen diine laa bokk su boobaa kooku bu fekkee ne dafa wooroon bu del si waaye itam ne ahankay man kat maa ngi tuub damaa juumoon su boobaa koor gi moom na yëg ne yàqu na dakoy remplacer yeneeni fan kon yini moy yi nga xamne ñoy yak yàqu koor yal nañu yàlla defal deug ak top hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Reubeuss TV moy suñu télé la chaîne de la vérité tassare len ko